lal ci xibaaru diggi bëccëg gi jaajëfal Seydina Omar Ba mi ñu ko doon euh, faram-fàcceel Seydina ñu ngi lay euh, nuyu. di la fayal Abdoulaye naka talaata ji. waaw alhamdulilah jërëjëf. xanaa ndox bu bëri rek. macha allah waaw biig de dafa fanaanoo taw. trop ndox mu bëri. bëri trop trop trop ndox mu bëri ànd ak ay dënnu. te boobu ba léegi gisuñu état jëm ci lenn ah. waaw plan Orsec ñu ngi ko doon laam-laame. ba léegi euh, war naa mun a. sur le sur le terrain la nga gis. Euh, jot nañu jëmmal plan Orsec. parce que actuellement nii man Kër Massar laay bàyyee ko. Mhm. mais pour te dire vrai Kër Massar am na ci ay gox yu bëri yoo xam ne nii. Mhm. ndox mi commencé na koy nangu. nangu. démb rek directeur délégué de quartier bu quartier Afia. Afia waaw. mu may woo. naan ma fu mu toll nii su boo demee Afia. bari na ci ay nit ñoo xam daanaka seen kër génn nañ ko ndax ndox mi. Mhm, amatuñu Afia. te li ci gën a garaaw dafa woo préfet wala woo sous préfet sous préfet ne ko fu mu toll nii état bi nekkuñu wala état bi kiwaguñu lancé guñu. jëlaguñu dogal. léegi nag loolu mooy li grave. parce que bu fekkente ne ndox maa ngi ñëw di occupé. te gisuñu ñu manqué ndox mi pour génne ko. mais loolu kon du ñu am benn genre mm-hmm. échappatoire mm-hmm. dañu wéet ak seen i jafe mu nekk nag lu doy waar gi nag daf ñuy yóbbu asuñu posé waa la question rek si la lancinante question mm-hmm. ci problème inondation yi lee inondation yi waaw parce que on dit que ante créé nañ fi benn plan de lutte contre les inondations ñu dugal nañ ci plus de sept cent cinquante milliards de francs CFA alors que jusqu'à présent dañuy wéy di dund ci inondation mais ab rek terme bi nga xam ne maam Birame wàcc waxoon na ko nee na 750 milliards. de francs CFA tey jii boo ko jëloon ay billets sax sànni ko ci biir ndox mi. waaw 10 000 10 000 yi day naan ndox mi. day naan ndox mi waaw day fendi. dafay fendi dafay naan léppay fendi waaw. mais mënuñu comprendre ñu jël. Mhm. plus de 750 milliards de francs CFA def ko ci wàllu inondation te jusqu'à présent ñun dañuy wéy di dindi inondation. Mhm. oui mais li ma ci gën a si dere mooy Kër Massar. Kër Massar. Ablaye j'avoue que ko suis. Mhm. Kër Massar lay juddoo. waaw waaw fa magg fa waaw. dëkk amul benn dëkk bu ma gënal. Mhm. Kër Massar waaw fa nga dëkk. parce que fa laa xam moom laa miin. Mhm, foo ne foo ma yóbbu woon indi woo Kër Massar du ma ci santi suma bopp. Mhm, bi que nag Pikine laa juddoo. Pikine laa màggee sama benn parti. waaw mais Kër Massar laa gën a miin. tout à fait mais j'avoue que jii Kër Massar boo fay dugg dangay ngay am envie génn Kër Massar. ndax melokaanu Kër Massar promiscuité ga fa am. li ma gën a metti ci Kër Massar d'abord mooy. waaw arnaque bi nga xam def nañ ko ñun ci kaw ndodd ci mu tukkee ci fan. dañu doon jooy ñun. problème mu embouteillage. ñu indil ñu ab autopont. autopont bi nee nañ lu mu bon bon def nañ ci 17 milliards xam nga 20 milliards. arnaque sàcc. parce safara la gu jur jàngoro boobu. tey jii la ñu gën a lor ñun. waaw. kerewul embouteillage bi tey jii la wàllu gën a ay. Mm-hmm. mais li gën a garaaw mooy ndox ma nga xam ne moom mooy bàyyeekoo ci autopont bi fu mu toll nii mu ngi nekk. di dévasté quartier ay nomadi cité ay nomadi mu nekk di leen dévasté bari na ci ay borom kër yoo xam tey ji génn nañu te dara war lu ko lu may pont bi waaw ñu annoncé ñu ay milliards ñun waa Kër Massar ñu annoncé si milliards. 15 milliards ci biir Kër Massar 15 milliards yi on se pose la question anamu. fa mu dugg demal buun. demal kër da demal Darou Missette. Darou Missette waaw. demal man fu ma dëkkee. Mm-hmm. c'est cité santé ba. ma ne demal fu ma dëkkee man. waa fi nga dëkkee fa fële ci kaw. pepp. ñun ñëpp actuellement ne dañ ñu menacé euh, dox bi daf ñoo menacé. ba cité Mame Dior. ñu ngi koy wax démb dañ ñoo menacé cité Mame Dior fees del la def. ma ne la xoolal fu mu toll nii ñun ñëpp dañoo mena dañu menacé wu. Mhm. Simla ak Samb mën naa la wax Ablaye Bob. Mhm. utal ma nekk sa kër. Hmm? ma ñëw dëkk si. parce que ñun ñëpp dañuy menacé parce que waxtu ne mën nañoo génn. wala tey ji oto bi ban bu may jël ci fajar. waaw waaw dañ na lu ne. fi oto bi daan gaaree man mhm. daanaan président daan da ñëw ba sama wetu buntu kër mu taxaw fa mhm. mais instant bi mënutul àgg sama buntu kër mhm. xam nga day def ay un kilomètre man maay xuus ci ndox mi dem fekk oto bi pour mën a xëy si waaw waaw mënatoo mënatul demee noonu ndax woto bi mënatul a et pourtant nee nañu jël nañ sept cent cinquante ko ci biir inondation bi te sept cent cinquante milliards dafa bokkoon wàllu vio yoon yi ñu defaroon yëpp yàqu na kër yi fees na kenn mënatul dox yi soxla na mu waree neexul ba neexul waaye waa Benno Bokk Yaakaar daal hmm. dañuy abal rek quoi. mais mais mais au niveau local. au niveau local ndax ndax au niveau local mairie ya fa eh, am na lu ñuy jéem ci ndox mi. xam nga assainissement inondation de compétence transfert bu mairie. waaw def leen a sut. xam nga mairie lu mu ci mën. inondation am na mu ut ay moto pompe pompe jox askan wi. jël ay carburant maye. Mhm, ñëw jënd ceeb ak diwlin assister population bi loolu la ci mën. Mhm. mais inondation état moo ci mën dara. tout à fait waay responsabilité. kon milliards yi nga xam ne état bañ koy jël di ko dugal biir Kër Masar wala di ko dugal ci yenn gox-goxaan yi. Hmm. mais il faut que ñu wax ñoom jël ah, da ngay jël ñu jël ay milliards def ko ci ab yoon. oui dañuy jël ab milliard def ko ci ab yoon. Hmm. mais yoon bi bu taw mu yàqu. Hmm. mais pourquoi pas entrepreneur bi def yoon woowu rek doo ko jël daal di ko tëj ci kaso bi. Ah, sanctionné ko ne yi la joxoon tey ji na ko génnee parce que liggéey dafa am dafay am garantie. dafa am garantie oui. mais Sénégal daal mooy dëkk boo xam ne da ngay nekk ab ah, da ngay nekk ab tailleur. ñu ga gañe gañe gañe gañe marché voirie yi. Ah, ñu jox la parce que lan parce que tu es mon copain. waaw wax nga dëgg de. <laughs> moo tax dara baaxu fi neexul ba neexul nag <laughs> gars yi. maanaam maanaam yaa ma neex bi bokk na ci lu bare bari yaakaar amatul ci ñoom. nañ nañ dem ba nañ dem quoi nañ xaw nañ dem gars créé waat beneen air bu bees quoi. lu bees waaw waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. cest à boo gis dafa ak jamono yàpp dafa périmé. périmé waaw waa benn bokk yaakaar fu mu toll dañoo périmé. Mm-hmm. li ñu mënoon. nañ ko ba noppi nañ dem. waaw c'est que bu ñu fi nekk dañu jaay ay Amadou Ba. bu ñu fi nekk dañu jaay ay Mame Boye bu ñu fi nekk dañu jaay ay Aly Ngouille Ndiaye parce que ñun du ñu woteel ay fonctionnaires yoo xam ne ay milliardaires lañu. ñun dañoo dof ñun di jël suñu carte di ko woteel ay fonctionnaires milliardaires. a gis ab fonctionnaire milliardaire. yéeme na. ci mim Sénégal gis fonctionnaire milliardaire. te yow mu wóor ne tu es fonctionnaire may ñu la nga def beneen liggéey parallèle. Mhm. kon noo def ba am ay milliards ci suñu ndonte ñun. yéeme na léegi ñun ñu wëlbatiku di la wateel yow mhm. pourquoi. <laughs> mais gars yi se fout de nous quoi c'est ñun si dire def nga transition bi yaa ngi ci. benno benno moomu nga xamante ne eh, tàmbale naa jur sax ñol-ñol ak Fanta Siro mel na ni sax dañoo xaw a du moyu euh, xëy na càkkuteefu benno la ñu joxoon jiitu réew mi sas ko ngir mu tànnal leen candidat candidat bi tànn nañ ko te am nañu àndut tak euh, tan gi mu mel. xam nga lan moo ko a Abdoulaye. ko lu ko sookee nga yaakaar. que tout simplement waa ji Amadou Ba. ba wóoruwuñ ko. wóoruwuñ ko de. parce que dañ ko jàppee ab bukki bu gis bukki bu sàngoo deru. béy béy. Mhm. wóoruwuñ ko. noppem gi la wala. tekk tekkaara la waaw xam nga kii lay jox Abdou Diouf. njool ma njool ma. waaw yaa ngi fàttali ko en 1980 bu ay tout tànk lañu mais histoire ba Senghor waxee ne dafay dem. Mhm. Babacar Ba dafa taxoon ne affaire bi man la. waaw Moustapha Niasse taxaw ne affaire bi man la. waaw ah, xëccoo amoon na ca waaw Senghor ñooru leen. suufu leen jël. njuuy leen ñoom Abdou Diouf teg. ba ñu ko tegee ñoom ñi nga xam ay kasig lañ du parti socialiste dañoo bañ ne kii du moom. Mhm. mu jar leen ñu ne dañ koy xeex. mais ba Abdou Diouf ko faloo xam lu mu njëkk a def dafa indi cré parce que xam na leen fi waaw parce que xam na ñoom cré mi fi <laughs> xam na ne ñoom ñëpp ay sàcc lañu eh, politique uh-huh. léegi nag pour mu noppi loolu daf leen indi cré yi da ngeen di noppi rek jaas jàngi wala ma dóor leen cré yi après xam lu ñu mujjee def uh-huh. ñoom ñëpp dañoo mujjee dem uuti ji seen i addiya waaw bàyyi ba aljuma jot waaw dem fekk ji Abdou juuf ca pale waaw buntu palais ba lañ doon raamee uh-huh. dem ba ci Abdou Diouf ci ronom. waaw ne ko bés ni tey jébbul nañu si yow àdduna alaaxira. yaay numéro diis <laughs> yaay numéro 10 léegi nag ab Amadou Ba mii daf leen a xam. xam na leen daa mel nii kon uh, mun nañu seen biir la bokk xam nañ sàcc yi xam nañ ña nga xam ni kii wuñu biir na leen actuellement ni gis nga li ñuy ragal gis nga li ragal ci li ñuy ci ci Ousmane Sonko. Mm. <laughs> mais lu ko raw moo nekk ci waa ji. ci Amadou Ba gis nga waa ji bu toogee. Mm. parce que Macky ragal ragal écarte moo sax mu topp Macky Sall. mun na ne. écarté moo sax mu topp Macky Sall ak njabootam. en tout cas noppi na de. ñemewuñ ko léeg-léeg li des mooy. Mhm. rafetlu ma attitude Aly Ngouille Ndiaye. bu bu bu bu. rafetlu ma taxawaayu maam Boye Diao. Mhm. raxalu rafetlu ma taxawaayu l' ensemble des partis politiques et des responsables politiques yi ne dañuy génn. xam nga Abdoulaye Daouda Diallo ak ñeneen ak ñeneen. gis nga booy bañ mbir da nga koy bañ fa nga ko war a bañee. Mhm. mais man li ma gën a bañ ci àdduna mooy fa nga fu war a waxtaanee bañewoo fa ngay génn di wax ci ay couloir c'est pas amul amul sens. gis nga ba ñu toogee wax ne ne waa coalition Benno Bokk Yaakaar coalition Benno Bokk Yaakaar kan moo fi représenté waa APR du président Macky Sall <laughs> ba waa coalition Benno Bokk Yaakaar dajee wax ne ne ñun jox nañu carte blanche président Macky Sall pour que mu tànnal ñu ku mu tànn baax na waaw président Macky Sall wax ci biir képp ku bëgg na nga déposé candidature ñu déposé seen candidature ñoom mm-hmm. mais le fait que président Abdoulaye Ba euh, président Amadou tànn Amadou Ba lu tax ñuy génn daan dañuy wax jur na ñoom ñu ko fenn kon kon tey ñoom bu ñu leen tànnoon kon duñu wax ñoom. kon waruñu woon a kaas. du ay démocrate. li ñu def ci teguñu ko fenn. ndax intérêt la ci. non li ñu def ak mu mënti doon mais teguñu ko fenn. Mm-hmm. doxalin bi ba ñu joxee carte blanche président Macky Sall wóor la leen ne président Macky Sall dina tànn. Mm-hmm. ci ñoom juróom am kenn ku muy tànn la ñu waroon def ay démocrate. nangu boo tànnee ku mënti doon ñu topp si ginnaaw. mais moo tax ñu tànn Amadou Ba kenn ku ne di tiire. Mm-hmm. lan lañ ko tegul waxoon naa la ko keroog dama ne ñàkk fayda weesuwul ñàkk fayda weesuwul nga nekk un responsable politique di politique nga coaliser ak président Macky Sall même bu fekkente ne président Macky Sall moom moo yore doole ja parce que mooy président mais tey jii yow am nga benn influence boo xam def nga ko sa localité ba ngay gañal président Macky kon tey président Macky ayam jeex na nga ñàkk fayda ne président Macky Sall jox nañ la carte blanche nga tànnal ñu. léegi mu tànnal la nga wëlbatiku naan da ngay bañ. <laughs> waaw man maa ngi liir ci journaux yi tey sax Linguère googu 19 maire ya fa ne 16 yëpp euh, du mooy nañu Aly Ngouille Ndiaye nee na rafetlu ñu doxalin gi. du yoon. ah oui. Mm-hmm. mun na leen a gàllankoor ci ah, yoon léegi nag ñu ngi naan ay problème stratégie la pour créer ay candidatures parallèles. waaw su ko defee bu ëllëgee. Mm-hmm. su ëllëgee léegi bu jamee deuxième tour ma ne leen foofu xam nga kooku mooy yàq wax ju nelaw. Mm-hmm. yéen da ngeen yekk yéen yéen nekk ci bopp yéen nekk ci bopp peuple bi. waaw yéen kay def leen seen diir rek. def leen seen waxtaan waxtaan leen waxtaan def nañu schéma élection bi. ma ne def leen seen schéma élection wax leen. Mm-hmm. jëm leen waxtaan leen léegi man. dessiné nañu léegi Youssou Ndour génn na nekkal candidat. Mm-hmm. parce que Youssou Ndour xam naa fa la jëm. di Seck nekkal candidat amul benn problème Amadou Ba nekkal candidat Mame Boye Diaw fippul nekkal candidat Aly Ngouille Ndiaye fippul bu dee Amadou Ba moo génn yéen ñëpp ngeen dem jàppale Amadou Ba. Mhm. ma ne ah ndeysaan ana peuple ana peuple bi moom. askan wi waaye. syndrome Ibo Leyti Ka ak Abdou Diouf dal leen Abdou Abdou Diouf. Mhm. ba deuxième tour Djibo Ka ne moom Abdou Diouf mooy candidat bi gën mu dem ko. Mhm. ñi ko jàppale woon ñëpp dañ ko dummoo yi dem fekk ci Abdoulaye Wade ca la ca la yëg ci moo tax dama ne pouvoir bi Abdoulaye ku ne mën na ko for waaw waaw Mm-hmm. pouvoir bi. ku ne mun naa nekk président. waaw nag Anta Babacar Ngom. <laughs> su ko defee nag euh, Sénégal am am jigéen ah, waaw mun na ne ah, mun na ne na ne su ko defee wala Mimi man damaa gisoon sax ñu ñu jox jigéen ñi xool ba xam ndax ay jàmbaar lañu te itamit euh, man ce qui est sûr et certain waaw bu jiitee Sénégal dana dox mm-hmm. waaw waaw man na ma ne tey jii mm-hmm. pouvoir bi ko joxoon Anta Babacar Ngom. waaw wala nga jox ko Mimi Touré. Mhm. Sénégal dafay dox. waaw day dox sax ci lu ci lu wér. ci lu wér mais góor ñi fi nekk ni tey war nañ seen waaw waaw waaw mais Seydina xam naa ne nañ seen tële. waaw euh, jigéen ñee ko yor daal la olof Ndiaye wax ne. campagne jigéen ñi ñu falu ku lu yàqu yewa. nañ fompal en tout cas daal lañ fompal ne en tant campagne jigéen ñi. jigéen ñi ndax ñoo ko yor. góor ñi moom wane nañ seen tële quoi. mangoog ñu jëm ci jigéen ñi. mangoog xam na naa na waxtu wi xoj nañu xosanto fa la ñu jeexalee ak dogalu préfet ba jur na fa musiba ñaari bakkan rot nañu ak ña ca jëlee gaañu Euh, gis nga Ablaye. Mhm. gis nga administration sénégalaise. oui il est temps des fois ñu wax ñu ñoom seen préfet naka la ñuy di ak seen sous préfet yi. Mhm. gis nga des fois boo demee ci àll bi. waaw tu vois des décisions yoo xam ne préfet yi ñu ngi koy jël wala sous préfet yi ñu koy on se pose la question pourquoi. Mhm. bari ki démb dafa am benn boy bu ma woo. ma nga dëkk fële ca Koungheul. nee na soxnaam. waaw dafa nekk ci diggante. mu dugal ko ci euh, mu dugal ko ci benn mu dugal ko ci benn saret mm-hmm. ñëw ci benn xuur waaw boo xam ndox kese la mu taxaw di ko filmer daal di koy di kii mm-hmm. nee na bu mu paree sous préfet ko woo waral loolu di ko di ko enquête moo tax mu def lu di mel <laughs> ma ne ko mais préfet boobu sous préfet boobu xanaa mooy yàlla mm-hmm. yéeme na yéeme na loolu te loolu c'est à l'image ci dëkk dëkkaan yu bari ci biir dëkk bi sous préfet ak préfet dafa mel ni ñoom daal ñoom ñooy kilifa yi nekk ci dëkk ba xool leen ndax ñu def naka nga mën a jëlee ab arrêté di ko changé xam nga lii c'est c'est extraordinaire ba ay bakkan ci rob moo tax bu ma déggee ne vraiment gars yi jël nañ décision daal di koy jël daal di ko koy jëlee mhm. uniquement pour jéem tension bi la tension bi te tey jii pour jéem apaiser tey dégg naa ab ministre de l'intérieur dina fa dem fa dem waaw gis nga Abdoulaye au delà de ça li ñu war a mën a posé wu la question mooy mhm, mhm. lan moo tax ñun ñu am suñu alal bu noppi nekk fi étranger waaw waaw l'étranger parmi les siens lan moo tax naka la Kédougou nekk dëkk bi nga xam moo gën a riche ci biir Sénégal nekk dëkk ci biir Sénégal naka lañ mu nekk or bu jéggi dayoo te population bi tey jii la ñu gën a pauvre mm-hmm. bu ñu añee duñu reer bu ñu reer duñu dëkk amuñu poste de santé ba amuñu case de santé ba amuñu courant bu doy mm-hmm. et pourtant chaque jour gars yi ñu ngi jël ay tonnes tonnes tonnes tonnes di ko yóbbu <laughs> <laughs> ñu nekk ay étranger suñu biir dëkk waaw yéeme na dem si yàlla gi bindoon na te loolu lu mat a bàyyi xel. li am Kédougou. moo mhm. am Diogo. waaw moo am mban moo mhm. am Fanaay. ci gox yu bëree bëri moo am un peu ci biir Sénégal. Mhm. suñu suuf dañ koo jël daal di koy tayle ay tubaab ñu koy exploité ñun ñu doon ay étranger ci suñu suuf soosu du yoon du yoon Seydina jërëjëf. Euh, waxtu yu xool nañu ñu ngi leen di jàll di masawu leen bu baax a baax. Euh, di itamit euh, di leen ñaanal suñu borom yërëm leen xaare leen ci ajana ya gën a kawe Seydina Omar Ba ñu ñaanalante. ñu yendoog jàmm waaw waaw waaw ci seen njort mu rafet ñuy déglu waaw waaw waaw am na ci solo jërëjëf Seydina ñu yendoog jàmm ak euh, programme leeru jamono jaajëfal Alioune Lo mi ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute beeg euh, ànd beeg Walfadjri bu nes ki seen ñu àndaat ak euh, Bijou Thiam Daf ci douceur matinal